mu ngi koo tëj tàccul mu ngi ko promote di ko waxal li nga xam ne du dëgg ahlu sunna yi gëmuñ ko lii mu wax yaani loolu coobare boppam la ay maslaha xaasa boppam la loolu lu tax mu wax ko mooy lii kon ñi nga xam ne xisbi yëpp nii la ñuy def suñ toxee ci Ahmed Lo Umar Salla loolu la def Umar Sall mu ngi nii di dal ci suufi yi di dal ci ahlil bidaa yi même temps mu ngi am ay ponkalam suufi yi ñi nga xam ne seen eh, eh, eh, seen kibaar lañ ñoom ñoo nekk xaritam loolu moo tax kenn du dal ci ñoom lu mu mun a wax ci ñoom ñu dem ci Aliou Aliou Aliou Badara Ndaw Aliou Badara Ndaw ki nga xam ne mu ngi ci rukku bi fale Kaolack même temps même chose la def yàggun ma gis Abdou Karim Xurum Xaq ki nga xam ne Abdou Karim Abdou Karim waru taa wax su doon Sénégal mel na lu mu war a wax nu mu mën a nu mu war a mel Abdou Abdou Abdou Karim Xrum Xax moom place nekkut média yi nekkut télévase yi nekkut fenn Abdou Karim warutaa wax Abdou Karim amut éducation Abdou Karim jàngut même français bu muy wax nii jàngu ko Abdou Karim amul xam-xam amul xam-xam ci français ci islam xamu ca dara tumaranke la ci xam-xam islam moom tumaranke la ci même su dee day oote opposant même opposant nu ñu opposé moom xamu ko kuy dégg te kuy dégg même xel sax amu ko kuy dégg nu muy opposé nu muy waxee moom xol lay waxee amu ci amu xam-xam dara kooku kenn waru koo déglu mais soo gisee muy taxaw di promote di jéem a promote Aliou ndaw parce que Aliou Ndao dafa bokk ak moom eh, fu ñuy naanee ñaari picc la ñi nga xam ne ñoo bokk fu ñuy benn mbalka mooy ne tariqatul xawaarij Aliou ndaw lool ci loolu la nekk loolu la gëm mooy ne président yi yëpp ñoom gëm a yéefar lañ waruñ leen saxal fi waruñ leen fi saxal dañ leen fi war a dindi ak doole Aliou Ndao xaritam yi ñoo nekk Boko Haram moom ci boppam ci làmmeñam muy wone avant balaa muy am problème bi day ware woon ne amoon na relation ak ñoom kon loolu kooku gëmul dala kooku xaariji la xaariji yat an fi lxukkaam woo ila axirihi kon kooku daawam bi fu mu ko feetee fu mu ko feetaloo loolu moo nekk Abdul Karim loolu moo tax mu taxaw di ko promote di wax ci moom lu baax ak leneen kon loolu musiba la ci Aliou ndaw ku dof wala ku ñàkk xam-xam mel ni Abdou Karim Xurum Xaq kooku moo lay tazkiya kon loolu yaa la yaa yaa la la musibati li hada rajul lii musiba la ci Aliou ndaw yow amoo kenn ki nga xam ne mun naa fi taxaw wax ci lu baax lu dut ku mel ni Abdou Karim Xurum loolu musiba la ci Aliou ndaw mooy wane ne nekku ci dara nekku ci dara lu muy yuuxu ci mimbar yi yëpp loolu yëpp dafa araam ci diini islam sunna bu muy oote gemu ko waaye su tee gém na ko yonent bi sallallahu alayhi wa ay hadis yu leer nañ lañ lañu fi tegal ne nit ki dafa war a déggal njiitam mu topp ko daganat pour muy taxaw di ko ŋaññi ci kanam nit ñi soo amee dara loo ko mun a wax na nga dem ci moom nga weet ak moom nga téye loo xam nga wax ko dëgg bi su ko téyee moo xam su ko téyewut yow wax nga li la war mais taxaw ci mimbar yi Macky Sall bi nangam loolu yëpp ay yëfi xawaarij la moom gis na ko ci téere ñu ngi ci Sahih Bukhari wa fi xayri min al ahadith al kathira kon gému dara kon Sénégal nu ñu nu ngeen ñu mun a forcer pour ñu gém ñoo xam ne gémuñ dara wax bii may wax nii xale yi danañ génn si seen pax yi di yuuxu abu di di ma saaga fu nekk parce que dañ gis ne laal naa laalaaxee li ma laal waruma ko laal pourquoi duma ko laal ñuy ootee woo dara te gémuñ ko ñun yëpp ñu bokk loolu noonu kon euh, xam nga leen ne dañ ko war a comprendre Sénégal soo fa taxaw wax dëgg nga gis koo xam ne day saaga yàlla saaga diine islam soo taxawee di ko eh, eh, di demande loolu noonu di ko di ko eh, delloo ñu ne yaa tooñ ku njëkk moo tooñ parce que diine bi ñoo ko bokk ku fi dugal dara ku fa yàq ku fi ku wax ci suñu borom dara man am naa droit pour taxaw ci kanamam mais nit ñi duñ gis loolu. kon am Aliou Sall Aliou Aliou Badara Ndaw Kaolack su doon ne gëm na li muy wax li muy oote Abdou Karim eh, Xurum Xaq lu muy wax ci moom dégg la ni ko noonu bu mu déggee xaraa karaa Modou Kara taxaw ne eh, eh, sëriñam moo bind asamaan ak suuf waroon na waroon na taxaw dénoncé loolu est-ce que dégg ngeen fu mu koy dénoncé su mu koy dénoncé dénoncé tamit ñemew duñ ñemee wax ne nii la ni ngay ootee turi Macky Sall ootee ko noonu kii nga xam ne di wax wax yu garaaw yi imaginal moodu Kara woo taxaw wax bi Macky Sall su waxoon lii nu nu nooy nooy def Aliou Aliou Badara Ndaw kon am na ay kufriyaat yu bëri ñu ngi fii Aliou Aliou Badara Ndaw du ko dénoncé su dee su doon eh, gaynde la te góor la dafa ñeme eh, ni ko eh, xurum xak di waxee ni ko noonu dana dénoncé lii parce que lii moom dafa jéggi jéggi dayoo kon moom tamit noonu la def Abdou Karim xurum xak gëmul dara ñase Tiijaan la ñaseen la kooku su ñëwee ki nga xam ne tiijan la ñaseen la yow nga dëkk ak ñoom yow Badara Ndaw nga dëkk seen seen maaqal fu ñu so fu ñu saxee foofu nga dégg dëkk même soo defee nii nga nga dégg si seen nga dégg seen seen seen seen liir yi ni ñu bare ak ñu ñoo bari foofu yooyu ngay dégg yooyu ñooy taxaw di la di la loolu moo tax parparloo baaxut ñaseen fu ñu jógee xam nañ ko Abdou Karim fu mu fu mu fu mu wéeru xam nañ ko su taxawee fii di di di di tàccul Aliou Badara Ndao yow sunnit bi yow ahlu sunna wal jamaa da nga war a taxaw stop nga nga xalaat lu pourquoi lii am Abdou Karim yoon bu mu nekk man jàng naa ci Sahih Bukhari ci ahadis yi ne lii dee nekkut yoon bu baax islam daf ko tere mais pourquoi man ma gém usta Aliou Ndao di ko topp mu nekk sama sama ustaad je may gis Abdou Karim di ko tàccul kon am na problème bu fa nekk kon Aliou Badara Ndao dafa am problème su fekkoon amutoon problème ni ko noon xawaarij yu ndaw yi ay afraax yi ay nen yu xawaarij yi ni ko noon duñ ko tàccul kon Ali Badara Ndao ana ana mawqifam ci ci ci ñaseen yi kenn gisu ko kenn gisu ko kon loolu moom parce que moom day da moom tamit dafa wottoo ñaseen yi dafa làkku ci ñoom di di jam ñeneen loolu moo tax duñ ko laal duñ ko def dara kon siyaasa la ñëpp ñi fi uutee ootee sunna xisbi yi ñooñu yëpp muñ dara bëgguñu sacrifier même même même seen seen seen suma seen suma sax mënuñ koo sacrifier ndi kitaab wa sunna bi taxaw ci senegal fer rek lañ fi nekkee gëmuñ lu ñuy wax yow ñëw nga nga nekk ci dëkk bu mel ni Sénégal yow mënoo sacrifier même sa suma nga ne ci kitaab wa sunna nga nekk xale yi taxaw di la défense ne yaa yaa fi gën foofu foo fen tojoo fen ñoom wallahi la azim diine bi bu muy taxaw ay dañ def lu nekk dañ sacrifice lu nekk yow ñu waxuñ la pour nga jël jaasi waxuñ la pour nga def dara dañ la wax ne yow sa kaddo waxal yàlla nee na yonente bi nee na nga waxee ko ni ko yàlla waxee ni mu ko buggee yonente bi ni mu ko waxee bu ci sa bu ci soppi dara du bu ci dolli dara su kenn taxawee eh, saaga yàlla wax ci diine bi naka sudut noonu am nga droit pour taxaw luwa ci àddina droit àddina ci lépp am nga droit pour taxaw dénoncer loolu défendre sa diine mais loolu ya loolu sax munuñ ko kon Ali Badara Ndao yow xam luwaa bi ngay oote anamu yow nga xam luwaa Sénégal loolu ngay wax di wax français ci sa xutba yi yëpp loolu njëriñuñ la su fekkee yow sa xamin luwaa munuñ laa munuñ laa Protect munu laa garantie pour nga mun a dénoncer ñi nga xam ne ñoo njëkk a tooñ ñooy wax ci sa borom ki la ki la bind sàkk la mm, wala ci sa diine kon yow sa xam lu ci réew mi amul njëriñ yow sa xam daal jëmale ko ci Macky Sall rek la yem kon moom tamit dafa euh, euh, làkku ci ñeneen di jam ñeneen